Nini, il se posent la la question Pape Bouba femme, une famille. il appartient à une famille. mais famille Bobo Ken, amul Fen, fu à chaque fois qu'on parle de Pape Bobo Diop c'est le c'est là qui qui qui est le devant de la scène. mais on se pose la question qu'est-ce qui se passe. pour présenter ou comme euh, représentant ou Pape Bobo Diop. c'est ce que la famille rejette. Je man li ma xam relation avec ex femme Pape Bobo Diop. Hmm. xanaa dafa demeewul noonu. Le ko Bouba ba léegi. amul Ken, ci membre famille bi ku mës a allo na nga def amul amul kenn ku muy woo faalewul kenn xam lu mu faale moom ñaari doom yooyu un point un trait invitation yi yi mu jot kan moo jox te bul fen c'est parce que ce sont les autorités ñoko jox parce que ñom ñom parce que man comprendre ma ñoom li mu am fi sax mom amuko amuko sen ko seen kër amu ko dëkk mu ñëw fii au Sénégal fii ñun ñi nga xam ne fii lañ juddoo yaroo fi nga fi am fi liñ fi am nekk fi ñuy ñëw di ñu di ñu tuutal quoi il faut que autorités yi ressaisir wu ci respectons ñu famille parce que nous ñu avons man dama qu'on nous respecte. c'est ça qu'on veut. da nga du respect quoi. c'est pas du respect ça c'est pas du respect. ok Bouba c'est pas n'importe qui. durant toute sa carrière est-ce que nous ko dégg ci ay comme ça. parce que dañ ko tek cette dame là il faut qu'elle nous respecte. Nous sommes ñi ngi tok di xaar duñ ko wax dara dañ ñi nous depuis nous ngi tok ça fait plus d'un an.

ñun ñun nous dégguma dama né waxuma dama né lima nous wax ni ñun ñi la ñoo ko dox wax ko ba mu mom xamul lu mu def fay amul leneen ci def musul taxaw amul ku amul c'est nous qui avons tout fait. mon moo revenir à la raison xol nan lay chaque fois nu muy pour di ak famille bi wa ak ñoom limi lu mu wara def mu ñëw ak muy muy parce que lolu mom loolu la fi buuba liggéey ba bàyyi fi. suñu mbokku sénégalais yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp seen TV ci télévision bi ak internet bi e, tey ñu am entretien exclusif e, ñu ñëw kër ñoom pap Bouba Diop war a waxtaan ak ay mbokkam ak ay magam ñoo xamante ne ñoo bokk ndey ak baay ñu jàkkaarloo ak magam bu góor Alioune Diop e, Alioune ñu bàyyi la nga nuyoo nga présenté wu. Mm-hmm asalaamaaleykum ñi ngi euh, nuyu Tëngéej nuyu waa Sénégal nuyu ñëpp man la Alioune Diop magi Pape Bouba donc euh, ñi ngi ñëw di di ziar ñëpp di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp quoi donc euh, tey dañu ñëwoon à notre grande surprise ñu am ay la benn groupe de presse bu ñuy wax Sen TV ñëw seet si ñu donc pour euh, ñu waxtaan tuuti ci lu jëm ci musée bi ak euh, waxtaan tuuti ci Pape Bouba Diop waaw. Euh, donc yow rek la bokkal ak ndey ak baay wala am na ñeneen. non ñun on est on est neuf ci ñu fi des ci kaw suuf ah, ñu bokkal ndey ak baay Pape Bouba. man am naa grand frère après moom mooy grand euh, sama mag mooy taaw ma topp ci ki topp ci man ma ngi France di sëy mhm. am na ku ñuy wax Thérèse moom te mi ngi Louga am na aussi sukkay na aussi après am na Thérèse aussi ci jigéen ñi mhm. ak aji bint mi nekk fii ci kër gi mhm. ñun ñuy jigéen ñi góor ñi voilà li ma la wax sama mag bi man am na As après am na Lamine après am na Balla. ok après buuba Balla rek la mag Balla mooy caat. Mhm. donc euh, ñun noonu la famille bi constitué wu quoi. Mhm. macha allah macha allah macha allah. Mm. yal na yàlla barkel famille bi. si kattanu yàlla. ñu gis l'inauguration inauguration stade Abdoulaye Nous ñu tuddee ko benn musée bo xamante sénégalais yépp rafetlu ko mm. euh, gisuñu fa présence su famille bi mm. légui ñu ñëw sees si leen euh, réaction par rapport ak lolu c'est vrai que euh, on a appris comme tout sénégalais musée bi ñu tabax ci bi donc porte le nom de Pabou Bouba Diop. on l'a appris comme tous les sénégalais euh, c'est vrai que ci suñu entendement dañ yakaron un buñu amé lu tollu musée tuddé ku ku ci suma entendement war nañu d'abord la famille officiellement ba famille bi au devant de la scène la famille de Pabou. Parce que nous, nous sommes avec Pabou j'ai eu des appels de l'extérieur. Lamine aussi, il m'a confirmé ça tout à l'heure. Il a eu des appels de l'extérieur pour demander qu'est-ce qui se passe. Mais dit, je ne sais pas ce qui se passe parce que moi, dimanche, la rencontre le ministre Maktarba au euh, Follet Arène Nationale, nous mettre en rapport avec le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet a tout fait pour mhm les invitations nous avons ko à donc pour les instructions du ministre mu exécuté mais malheureusement nous... bon voilà la veille nous ngi doon jokkoog avec le le directeur de cabinet mais il a tout fait pour nous jot ko donc non, la situation bi présenté mhm. à la dernière la veille nous avons ko jox carte yi. carte invitation yi ñu yi euh, ministre qui nous ñu jox ci koy a jot. Mhm. donc c'est vrai. Le ministre a tout fait, on le remercie de passage. Euh, le deuxième de cabinet, on le remercie de passage. Parce que ce que l'on dit ici, le cadre au sein de la famille. au sein de la famille, c'est ce qu'on a, c'est le constat là qu'on a, qu'on a fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, non dal, le def, nini, bon, c'est vrai, ils se posent la question, pas beaucoup de femmes, une famille. Mm-hmm. il appartient à une famille mm-hmm. mais famille boobu kenn amul fenn fu famille à chaque fois qu'on parle de Pape Boye c'est le c'est ce là qui qui qui est au devant de la scène mm-hmm. mais au se pose la question qu'est-ce qui se passe foofu laa bëggoon ñëw ak yow gis nañ président de la république euh, jotoon na recevoir euh, soxnam ak ñaari ah. Euh, aussi euh, seenoon nañ ko encore jour inauguration bi nous on pensait que c'est-à-dire yéen ñëpp da ngeen ànd rassemblé wu dem si Hmm. non non ñu non ça s'est pas passé comme ça amul dara lu ci d'abord Ben, fu aviser officiellement. Hmm. que euh, le président doit recevoir soit la femme de Paboule soit la famille de Pabouba. On ne sait pas ñun mënuñu ñaari donc président doit recevoir famille de non franchement il a jamais reçu. Euh, il nous a jamais reçu plus tôt. donc euh, nous bi muy recevoir femme euh, la femme l'ex-femme de Pape donc pour vous donner ben ben ben ben qui ben anecdote dom ji fii la nekkoon fi ak ñun femme bi jël otoom gaare ci buntu kër gi jël doom ji ànd ak moom jubal dem. te yéen yëgu leen ko. te yëguñu on est au courant de rien du tout te dom ji fii la ko récupérer fi, fi ma toog ni fa la ko récupéré mhm. et elle est partie avec qui voilà ñun c'est le soir qu'on a reçu sur l'Internet que euh, le président a reçu la femme de Paouba. Et eh non, ce pas la famille de Paouba. Ça, c'est le... Comme, comme, tout le monde le constate, c'est le Tobab qui est là-bas. La famille de Paouba, c'est nous. famille Bignon là. Mais est-ce que Guissone est mot fautif Certes, parce que man y a un critère, critères xawma ci base nous, nous defé invitation xawma ou bien audience tout ce que vous voulez dire Je mhm. ne je sais pas mais euh, kiiwul euh, c'est pas ça. musée si j'ose m'exprimer comme ça. si je ne comme je je je m'excuse du terme mais dans euh, ni ñu def du non. Et musée pas Bouba Diop bi nga xamante ne tuuram moo fa nekk. Mhm. lan moo ci seen mbégte ak seen yéeg-yéeg. c'est vrai que d'abord ñu ngi remercier le président de la République moom mi nga xamante vraiment kàddu yooyu sax laa waroon jëkkee ñu ngi remercier bu baax a parce que musée bi le nom de Pape Bouba Diop suñu mbégte la suñu fierté la toute la famille toute la famille Diop suñu fierté la donc mais euh, vraiment daal euh, remercier nous, ko ñun la famille opportunité bii nous mënoon saisir vraiment pour remercier le président de la République ci ñi joxe le nom de Pape Bouba Diop euh, cette musée là vraiment on en est fiers, et puis on est trop content de lui et puis nous koy ñaanal que les remercier aussi mais dal ce qui concerne aujourd'hui inauguration égalation carte invitation yi on a été là-bas et après on nous a contacté sur rien du tout Ben moment on a vu que la dame elle est sortie Fin toute loge elle est sortie tout ci biir je parle ay pex yu mu doon def bu génn wàcc ci souf voilà. ok pour woné né pour pour pour présenter ou comme euh, représentant wu Pape job c'est ce que c'est ce que la famille rejette intégralement. ok parce que mom du mom muy représenté Pape Bouba Diop. Euh, man lima bëggone bëggoon xam une hmm. relation ak ex femme Pape Bouba Diop. Hmm. xanaa dafa demeewul té de euh, suñu relation la relation de la famille ak jabaru Pape Bouba bi won c'est-à-dire nekkul au beau fixe. boko don wax ci olof. Euh, xamul c'est-à-dire euh, demeewul noonu. Mhm. moom à chaque fois de bon je dirais biko bubu Bouba ba léegi je dis je pèse bien mes mots je dis que biko ko Pape Bouba Diop ba léegi amul ken ci membre famille bi ku mës alors na nga def amul donc imaginez-vous situation bu mel noonu kuñ ne soi-disant jabar di ko vivre ci ci ci famille amul kenn ku muy wo faalewul kenn xamal lu mu faale mom ñaar doom yoy un point un trait kooku ex femme am la soxna si la léegi sen diggante ak xale yi nak sen deret la bon suñu deret la xalé yi mom moom ñu fexé ba bokkuñu deret parce que pap bo leen jur ñoo Pape Bouba bokk ndeg ba donc ñoo bokk deret lenn daal laa ci la ci wax moi, je crois que am nous lu la presse hein, parce que pour yégler tu peux passer par la presse pour nous pour nous mettre mettre au courant de ce qui se passe au niveau de la famille de Pabouba parce que li on est responsable de ce que l'on dit ñu pour waxu ñu pour dara mais dañuy yégler wax nit ñi li xew

Euh, dama lay defal benn rappel bu ndaw. pap pap buuba bi muy génnee àdduna yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. Euh, toog naa ak yow ñu def benn interview. Mhm. Euh, si biir interview bi rek maa xamal ne pab buuba bi muy dund léppam yéen a ko yor. Ah, tout day woote grand. def leen li grand grand et cetera et cetera. exactement léegi moom génn na. Mhm. footballeur la woon. ñëpp xam nañ ne ku nekk footballeur am na yàlla lu mu la dënk astuut mhm. te xale yi ay mineur lañu. Mhm. est-ce que moom bu dee am na lu mu bàyyi gannaawam. Mhm. est-ce que sécuriser ngeen ko par rapport xale yi balaa ñuy ba balaa ñuy majeur quoi. waaw c'est vrai que comme tu dis boo boo bëggee wax wax bu leer mooy sur les biens de Pape Bouba. oui c'est ça. parce que bien yi ba léegi nii ma nga en stand by fu mu nekkoon waxaguñ ci dara parce que xam nga comme je l'ai dit tout à l'heure quand y a une femme comme ça elle est tobab, elle est là-bas donc bien y pas bu pas bu ma Vous lim une du jeex ah euh, bon parce que nous, on travaille dans l'ombre Bouba, musul musul def dara ñun pendant 15 ans nous avons def toute la famille la coordination famille bi mes frères a dafa def ñun dañu am formation en génie civil donc on n'a jamais conseillé pas bu ludul ci immobilier ci la je dis des des centaines de millions hein, voilà. Mhm. que que que en Afrique au Sénégal que euh, en Europe aussi. Mmh. en Europe euh, on a on a mis euh, pas mal de maisons petites que nous gi nga Il ne tey fa la ndaw si dëkk fa la voilà acheter on a euh, fait la la réflexion tout ba le booba de ba ni mu à àddina donc pour les biens de Bouba waxaguñ ci dara ni ngi toog ne teg di xaar di parce que xam nga situation yu mel noonu kenn mënu ko régler ci ay. Euh, il faut que nous dans il faut que nous rentrer dans l'ordre nek ci pour ñu nek ci la ci ci ci ci euh, environnement bu bu bu bu correct quoi pour mëna mm-hmm, mm-hmm. tok xol exactement nak qui ñuy lool mais nous dal mom les bien on a pas quand même quand même. non non waxaguñ ci dara. Mm-hmm. waxaguñ ci dara. on a pas parlé mais responsabilité bi si nous la ah non actuellement les responsabilité mënaguñu nekk ci ci ñun parce que xam nga ci ci loolu dafa am ñaari mbir benn yi mooy dafa am loo xamante ne lu légitime. Mhm. loo xamante ne ça compte ses enfants ñoo ko moom mais dafa am loo xamante ne moral la xel moo ko dul nangu. Mhm. donc pour ne pas dire pour ne pas dire autre chose on peut s'arrêter à ça. Mhm. parce que junj doy na borom xel je dis que pour les bien de amna lo xamantene xamante ne c'est légitime mooy doom yi ay doomam lañu. loo xam ne lu légitime loolu yoon na leen ko mais xale yi amuñu 18 ans. amuñu 18 ans. waaw mais amna lu yoon wax concernant ça. Mhm. d'accord ñi ngi ci ñi ngi tënku on dit rien. Mhm. mais nak amna lo xamantene aussi moral. Mhm. moko ko nangu. waaw parce que ñun mënuñu tok fi on a on a bossé quand même pendant des années pour Bouba. waaw Pape Bouba euh, monde a na ci histoire. ban mhm. appel avez-vous lancé lancer état du Sénégal prochainement. Mhm. le poulot a maintenu ci Sibir Sénégal nous mhm. euh, avons war ko Pape Bouba Diop. ban appel vous di état du Sénégal nous avons rectifier erreur yi jot am audience bi am na demu euh, chaque fois daam bi quoi. exactement cette question je l'attendais avec avec parce que. Hum, euh, appel béni lancé au niveau de l'état c'est simple comme bonjour Moi, que bëgg nañ daal lépp lu xewati lu concerne pas Bouba Moi, que état bi lépp loo xamante ne war nañ ko def concernant pas Bouba nous saisir officiellement la famille C'est ce que nous ñaan mais parce que aussi ñu bañ a c'est-à-dire que voilà quoi parce que j'ai vu euh, euh, j'ai anecdote bu ndaw on en a parlé parce que la dernière fois c'est lorsque euh, les gosses les ils ont marqué le but de la France le but kii match joué. Mhm. Dans ce def. d'accord c'est après le match j'ai vu qu'il y a une presse.

il faut que l'État sache que Pabouba a une famille qui réside ici à Dakar, au Sénégal. C'est waaw que nous lañ doon ñaan. Mhm. waaw ci eh, monsieur Diop ñoo ngi lay de di la jaajëfal bu baax euh, yan kaddu ngay daanale. waaw man daal euh, li may daane daal di comme li wax tout à l'heure di remercier le président de la République surtout d'avoir porté le le nom du de Pape Diop sur le musée au de euh, comment dire au euh, Abdoulaye Watt voilà lol dal lañ doon euh, tàggu di ñaan salam jàmm mhm. wasalaam Euh, ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax suñu mbokk sénégalais yi topp bi ngeen di topp seen TV si biir internet bi ak télévision bi euh, ñu doon dalal euh, Aline Badara Diop grand frère Pape Bouba Diop ñoo bokk ndey ak baay sëq ak moom waxtaan si lu yaatu yaatu yaatu di leen jox dig daje ba beneen yoon.